Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di ziar bu baax a baax ñu ñëw ci deuxième séance d'entraînement bu suñu gaynde yi ñëw ci Sadio Mané ak Ismaïla Jakobs si nga xamante ne démb te nuñ ci première séance d'entraînement bu suñu gaynde yi tey nag euh, nga xamante ne mooy deuxième séance bi tombeek mardi nga avons dembu ci lundi bi lañ commencé entraînement yi ngir kan 2024 galop bi Sadio Mané ak ki Jacobs euh, ñi ngi ci ci science donc euh, Sadio Mané nak bimu ci euh, bu. jam ñaajo euh, donc muy cette annexe bo jam ñaajo donc benn séquence attiré na l'attention sénégalais yu bëree bari bari parce que moom attaquant international sénégalais Sadio Mané a été

la luy xeeñ neex la parce que li ñuy wax rek groupe bu ñu solidaire rek lu ne man nañ koo am donc ñoo ngi xaar indi fii ci CAN bi